وداني sëriñ Ibrahima mbay xasida wala ngi si suñ taxawaay bii nii du doon leen lu may taxawaayu cant ak kàddu cant ndax bis bi nga xamante ko baax am at mu nekk mi bisub sant sëriñ Sam mbay ren moo doon ñaafkat ak ñett te at mu nekk daa baaxoo tànn benn mag ba ñaari mag tudd leen bis bi ren boo dee xool day ni ki nga xamant moom la ñuy wax Serigne Ndiaga Dieng ak Serigne Mbaye Dieng ñoom ñaar la tudde bis bi waaye boo doon xool mel ni ba ka Serigne xalaate ba léegi njabootug sëriñ Ndiaga Dieng ak Serigne Mbaye Dieng ñëpp boobu ba léegi daa mel ni bis bi ñoo ko gën a bëgg Serigne Ibrahima jëf gi ngeen gis muy gileem gii ñaar ñooñu ma tudd seen njaboot ñoo fa indi ngir ànd ak Serigne Ibrahima ci sant Serigne Sambey gi nga xam ne yàgg na ko amal at mu nekk ci waxtu wii nii njabootu Serigne Ndiaga Dieng ak Serigne Mbaye Dieng ñoo ngi nii nekk suñu wet ñi fi fi nekk rek ñoo fi teewal ñi nga xamante ni nekkuñ fi muy Serigne Habib Dieng ak Serigne Fallou Dieng ak Serigne Modou Niang ñi nga xamante ni ñoo fi teewal njaboot gi tey ngir indi teraanga gii ngir indi addiya jii nii lii nag ñoom defuñu ko lu may seen xol sedd gi sedd ci sëriñ Ibrahim bàyyi gi mu leen bàyyi xel ndax ñoom maanaam bëgg a siiw taxut ñu jëf-jëf ji danoo xool sëriñ Ibrahim xool dëkkandoo gu yàgg yëg ni lii yàlla kese la ak dundal mbok kese la ak dëkkandoo gu yàgg kese la moo tax ñoom ñu boole seen ñàq wi ni indi ko fii ci quartier Touba Mbayeen ngir wan sëriñ Ibrahim bis bi sant nañ ci lool te gërëm nañ ci lool ci seen xol sedd na ci lool kon nag yéen sëriñ Ibrahim ne mi leen sant bu baax a baax a baax teraange rëy na ci moom lool te bëri na ci moom lool boo ko indiwutoon lu tey moom lam leen war a defal dana ko def te lam jublu ci bis bi mooy mag ñim koy tuddee xale yi nga xam ñoo ñoo mujj a judd mag xale yooya mën a dégg jeexantal mag ña man cee jàngat man cee jariñoo ndax mag ñooñu kenn ku ne xam ne liggéey nañ yàlla liggéey nañ Serigne tubaa waaye day mel ni jamono da xat-xat goo xam ni bis yi mel ni rek ci nga mën a tuddee mag bis wala nga dara jaare mag bis ngir sëtti ñooña ak gone ak ak gone yi nga xam ne ñoo judd ñoo juddoo ci gox bi gënaaw mag ñooña gone yooya mën a jàngat ci ñooñu seen i ak seeni melokaan ba loola ñoom buñ ko toppee bàyyi ñu dégg dana doon bu ëllëgee gone yoo xam ne dañ yarum réew wala gone yoo xam ne day bokk gone yi gën ci àdduna gone gën ci askan wi kon sëriñ Ibrahima moo ko soppay sëriñ Samba yëpp ak sëriñ Fallou Mbaye même mbagam ak soppa yëpp sant nañ bu baax seen xol sedd na lool. arab na day wax ne al ikraamu laa yorot teraanga kenn du ko delloo te di teraanga la mais ñaan mbuut mi yàlla def ci joxe ñam mbuut mi yàlla def ci joxe xéewal mbuut moomu noonu yàlla nag suñu borom gën a ful ci seen biir. ba kenn ku nekk ci yéen li yàlla digge ci joxe xéewal li yàlla digge joxe teraanga suñu borom fay leen ko ci bàkk sëriñ bi ak xasida yi dañaan seen xalifa seen i kilifa ak seen i njaboot yàlla gën tëb ci seen biir barke ak xéewal ba kenn ku nekk la nga am yéene liggéey ko yàlla ak sëriñ bi suñu borom may la ko wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu Amen. mbokki jullit yi mbokki taalibe bi ñu ngi nuyu ñëpp te di leen siyaare yi jiital sëñ Ibrahima mbay mii ñu toogal te mooy borom bis bi biñ fi ñëw ñu ngi fi ñëw ci turu monsieur le ministre Gallo Ba di maire de Mbacké mu waxoon ñu biñ fi ñëw ñu ànd ak suñu mbokki kilifa yi ñu ànd ak sëriñ Dambuso ak sëriñ Saliou Diatara ak sëriñ Diatara ak madame Ka ak Omar Seck mi ñu ñëw si turu maire bi ak maire bi ak ministre bi mm-hmm. bi biñ fi ñëwee fekk nañ ci Ibrahima mbay mi indiloon ko addiyaam addiya ji nag du tey lañ ko fi tey lañ ko fi doog andi yàggees na ko fi indi leen na tax it ñu gën ko fi mën di indi Ibrahima Mbaye doomi Mbàkke la ba nappi mooy tagg kërëb yonent bi nga xam mi ngi ko jaarale ci xasida Sëriñ Tuubaa yi boobu Mbàkke Mbàkke bu ñu leen laajoon mooy seen jàngkat si Ibrahima mi la wax loolu ñëpp xam nañ ko ñu loolu yàgg lool te nag tawfeex monsieur le ministre nee na woon nañ fi ñëw jébbal la nag wu mu la jox ci turu ci turam ak turam mboolem dëkk bi ndax defalu ko kenn ku dul yow ndax dëkk bi la ko defal dëkk bi ñoom seen ab jàngkat bu doon bu ñu doon am ci yeneen dëkk yi ni ñuy favoriser seen nit ñuy fo wala seen nit ñuy def nangam ñun tam amuñ benn lu dul yow loolu lañ mën ci yow boo ko amoon lu ko ëppit nunu la koy defee waaye nag comme yàlla dogal na lii la am te tàmbalee ko tam ngi si nag ak dëggu ci yow aku jàpp aku jàppale loolu lu loo xam ne yaa ngi ko wax ndax na gën na gën daaw lañ fi ñëw ñu nekk ci biir élection yi te ku ne xam na biir élection yi nit ñi si nekk ñeme péete bëriwul nga ñeme péete ñu ñëw fekk la fii nga joxañ photo Serigne Touba bi ak kaamilu alxuraan bi na ñaar ñii laay bàyyee ak galo ba nga ko bàyyee ak ñaar ñu ñuy ñaar ñu ñuy fal nañ ko ba jox ko maire bi bañ ko falee jox ko maire bi yàlla dogal na dara toppaat ca muy ak ministre goo xam ne bañ ko dalee bëgg yàgg na kon ñu ngi sàkku nga ñaanal ko tawféex ak xéewal ak wér mission bii ko Mbàkke jan mu àggale ko foofu kenn mu sa yóbbu bii ko président lu la jan mu yóbbu ko fa mu ko bëgg a yóbbu. leen di nuyu bu baax di leen ziar di wax alhamdulilah rabil alamin ginnaaw ba yàlla defee at mee jàll ñu ànd ko ren itam mu ñëwaat ñu àndat ko ñu ngi sant yàlla bu baax te di ko ñaan ñu fekkee ko yaat yu bari wax ji nag daanaka li ci ëpp sant la ak ngërëm ndax ku ne gis na taxawaay bi nga xamante ne bii. waaye daayira soppe Serigne sambay Mbaye ñu ngi koy faral di amal ci bis bi muy bisub sant Serigne sambay Mbaye bii ñuy faral di amal at mu ne. ñu am ci nag wax dëgg yàlla taxawaay bu rafet di ko sante Gallo Ba mi nga xamante ni bii tey mooy monsieur le ministre yàlla dogal comme ni ko sëñ ji li waxee at mi passé ni nga ko waxee noonu la ko noonu lañ ko seedee Serigne Ibra ba ñëwee seede yooyu la la def ah bàyyee googu mu ko bàyyee sunu kilifa yi di Serigne Touba nga xam ne moom rek la ñu am moom la def ba seddal ñu ko ñu ñëpp yàlla dogal suñu borom defal ko ci ndam ñuy ñaan ndam loolu mu sax ndax ndam la loo xam ne jàpp naa ne ndamul Mbàkke la. di ko ñaanal monsieur le maire monsieur le ministre suñu borom yàlla ko dëbbu kàttan ba lu mu man ren mu am mu mat lu ko raw ci turu soppey Serigne Sam Mbaye ci turu soppee Serigne Ibrahima Mbaye ci turu waa daayira bi ak turu. bokk yi ak jegeñaale yeeg ñëpp ñuy safoo sëñ Ibra di safoo daayira bi nga xam ne mooy soppee Serigne Sam ñu ngi leen ciy sant bu baax a baax a baax a baax. sëriñ Ibrahim nee nañ sant bu baax a baax di leen gërëm ci teewaayu waxtu wi nii ndax mel na ne at mu nekk moo ko yéen yéen koy ànd. daaw ak daaw jëg yëpp nii ngeen ko defe woon. li tax nag bis bi mu taamu bu ne suba la ngeen ñëw jàng fi lu lenn lu may bu ba ci bis ba yëngutu yi day bëri lool ba teewlu xasida gi na mu waree dëgg-dëgg dana des moo tax muy donte benn minute la ngeen jàng xasida ngir sant la ko yàlla tàbb ci sant gi muy sant Sëriñ Sàmba yi kon nag yéen waa kuréel gi sëriñ bi Ibrahim neen ñu leen sant bu baax a baax di leen gërëm mooy ñaanal sëriñam wasilaam sëriñ Sambay ak di ko sant bu baax moo kii waajuram te xam nañ loolu mu bëgg ci sëriñam di buntam ci Sëriñ bu ko jaaree ci xasida rek lam ci bëgg lépp sunu borom mën na ko may di sant bu baax njabootu Cheikh Amadou Diop ñoom ñi nga xam ni ñoom lañu ay saalixaat nga xam ne at mu nekk yéen ak waa daayira Xaraq fa daay yéen a koy ànd ak moom at mu nekk ñoom Serigne Cheikh dana ñëw ànd ak waa daayira ji gis na seen taxawaay ànd gi ngeen ànd toog ci baas bi jàng xasida lim yi ngeen jàng yëpp Serigne Ibrahim nee na xorom sedd na ci te bég na ci lool li wax waa daayira Xaraq fa daay loolu leen wax mooy seen alquran gi ngeen jàng ci bisub tey bii nii. fii ba suba nit munta jëf jëf di gën a rëy kon nag Serigne Cheikh yaag sa mbokki bopp yi nga àndal Serigne Ibrahim ne mi ngi sant bu baax a baax ci seen teewaay bis bi nag lu am cosaan la alquran day wax ne fa xalafa min baadin xalfun adaau salaata wa yàlla day wax ni am na xeet yoo xam ni buñ amee maam baax am baay yu baax seeni doom ak seeni sët bu ñëwee seen baay yu baax ya ak seen maam yu baax ya la nekk woon buñ ñëwee dañuy safaanal jëf jooju kon yaakaar naa say Ibrahim moo ki mbokki boppam bokkuñ ci ñooña ndax santuk Serigne Sam gi yàgg na koo def ndax ren mooy ñaar fukki at ak ñett ci ren kon yaakaar naa bu ndee wër ahlu xasida di wër ahlu quraan di wër jeunes yi nga xamante ni am na bis ci diggante Mbàkke ak Touba rafet naa jot ni bisam bii nii dana néew lool bis bu ko mag kon bu ndee lim ban bis ci bis yi Sëñ Touba yi bis yi ñu tuddee Sëñ Touba yenn bis ñoo ci mag faw booy bang say baaraam rafet naa njot ni danga ci boole bisub Sëriñ Ibrahim bii nii kon ñaar fukk ak ñett nekkut léegi négut ba yomb ba ay sées bëri ba dagale mbooloo yomb mu soog woote bis képp juddoo Mbàkke ba ci ñun ñii nii kenn ku nekk ñun ba ngay doon xale yàgg nga dégg lan mooy cantuk Serigne Ibrahima Mbaye ca Touba Mbayeen kon nag bis bii nii na xam ne bis bu yàgg la ndax Cheikh Mouhamadou Kabir mbay moo fi daa ñëw jóge Kajoor di war a fasan di ñëw fii nii di fekk si bàyyi Serigne Ibrahima mbay nga xam ni boo xool wax nan ni fi mu daan yeew fasam gi àllaama googu màndar googu mi ngi fii nii nee na sump gii nii Moussa ñëw fi la daan yeew fas wi daan fi ñëw du nur ak mbokk ak tamit di seet si mbokkum deretam di seet si mbokkum lislaamam biñ toogee ab diir mu jóge fi ki ñu wax Serigne Mor Mbay ñëw di fedd li jëfi Cheikh Mahamadou Kabir moomu sëriñ Mor bi mu fi jógee sëriñ Ibrahima Mbaye mi nga xamante ni moom la tuddee sëriñ Ibrahima mii nii ñëwaat di fedd feddali loola bi mu fi jógee sëriñ Sam Mbaye radiyallahu anhu di jàmbaar lislaam di sëriñ tubaa ñëw di ko def comme ne ko baayam daan defee sëriñ Ibrahima yëmut foofu. mu sëriñ Sam doon buntam ci sëriñ Tuubaa doon wasiilaam yaakaar ko tey ak ëllëg sëriñ Ibrahima ne mi ngi sant bu baax a baax di leen gërëm bu baax a baax a baax di ñaan borom bi subhaanahu wa taala képp ku ñëw ku nekk suñ borom jéggal sa bàkkaar yi tey ak ëllëg suñu borom faj sa xaajo yi biir ak ëllëg ci bàkkaar suñu Tuubaa xasida yi. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. noo ngi leen di nuyu di leen ziyaara ci turu Serigne Modou Habib Mbacke xalifab Serigne Cheikh Abdoulahi Mbacke ibnu Serigne Mbacke Ramata. mu ngi leen di nuyu di leen ziyaara ci turu kilifaam sëriñ Cheikh Touba mi nga xamee ne moo nekk ci bopp njabootuk sëriñ Mbàkke Ramata di ziyaare sëriñ Abdul Xaadir mi teew ci jotaay bi ak sëriñ Maam Mbàkke Imaam ak mboolem njabootuk sëriñ Mbàkke gépp ak mboolem njabootuk sëriñ seex gépp di góor di jigéen sëriñ Modou Habib nee na mi ngi jagleel nuyoo ak ziyaar ak ndokkeel sëriñ Ibrahima mbay di ko sant bu baax cant koo xam ne bootaale na mboolem cantu njabootu sëriñ Cheikh. sëriñ Ibrahima sëriñ Mourou Habib nee na mi ngi lay sant bu baax di la gërëm di la ñaanal yàlla na nga yàgg a taxawi bis bi te lépp loo ci def yàlla na nga ci daje ngërëmal sëriñ bi ak sëriñ Sam mi nga xamee ni moom nga koy defal. sunu xol sedd na bu baax a baax ñun ñëpp képp koo xam ne njabootu sëñ Cheikh nga wala ngay ab soppeem wala ngay wala ngay wëllëreem am nga mbégte mu yaatu lool ci bis bi. ndax dama dama damay wax ne bis bis moom rawatina bis yu mel nii képp ku tuddee sa kilifa day mel ni bu la ko tuddee wut xaqiiqatan tuddee na la ko majaasan moo tax kenn ku ne am yëg-yëg bu rëy ci xolam nga xam ne bu amoon li ko gënal moom mooy def li war ci bis bi lépp ndax kenn ku ne. xam na ne bis bi bisama li ko ci war lépp soo amoon li ko gënal da cay def loo xam day kawe njortu sax moo tax kàddu yi kàddu yi gàtt lay doon rek kàddu yu cant kàddu yu ngërëm lay doon di la ñaanal bu wér barkeelu bi nga xamee ne tamit jot nañ koo dajale yéene rek la waaye buñ sañoon moom day nekk loo xam ne foo ko takk da koy paase. waaw kon ñoo ngi sant bu baax a baax. ñoo ngi leen nuyu yéen njabootu sëriñ Cheikh mbakke mu sëriñ Mbacke Ramata ci turu Serigne Ibrahima Mbaye Xasida di leen sant bu baax te di leen ci gërëm bu baax a baax te di leen ci ñaanal tey bëgg lool ci yéen. am ak yéen jotaay bii nii ndax li mu jàpp mooy jotaayam ak yéen day mel ni mag ña ñoo jotaaya tey gii nii te suñuy maam ak suñuy baay lan doon ñaan yàlla ci biir jàkka yi ak biir néeg mooy jotaay mel ni di am seen ginnaaw ndoona loolu mën a yokk moo tax la maam ya woon démb di rek Cheikh Mouhamadou Kabir ba ci Serigne Mor ba ci Serigne Ibrahim ba ci Serigne Sam daan fekk ci seen mbokk mu baax boobu di bàyyi Touba di bàyyi moom mii loolu noonu moo war a jotaay bii nii bis bi nag bisub sant Serigne Sam la ak ñaanal Serigne Sam ak ñaanal mboole mbokki Serigne Sam ak girit ñëpp waaye lim jublu ci jël Serigne Cheikh mi nga xam ne bu yàggul dafa bàyyi ko ko ci biir bisam bii lenn lu may ñaanal gi mu ñaanal Sam ak mag ñi jiitu ñëpp sëriñ Cheikh ma tàbbi ci biir loola ndax xaj na ci ndax man da lazi yuqridu llaha qardan hasanan fa yudaa'ifuhu lahu ad'aafan kasiira yàlla moom ku ko jëfal rek mu fay la te yàlla tam ku ko lebal mu fay la te way nekk bii barsàq yëpp rek lan gën a yittewoo mooy nit ku ne ñaanal te suñ boroom bu nangoo benn tip bu nit lekk ba benn xaraf bu nit jàng wenn xaraf ak wenn tib woowu noonu waaye barzaq yëpp mën mën nañ ci xir ba tab bi ajoon te du jeex ndax albani rahimahullah day wax ne man la wa xasna daqal aljanna ku am benn yiw yàlla tàbbal aljanna man jaa bil xasana falahu ashru amsaliha wa man jaa bi sayyi'a fala yujza illa mislaha yooyu rek ma waral mu tànn seen waajur bu baax woow nga xamante ni waxam daa nii lool te jëfam rëy doonoon ko maanu doon ab liggéeykat doon koo xam ni mel na ne la Serigne Touba bëggoon nit nekku ci barab mooy doon kilifa sampi daara di bay du dunde di tërbiyee ay xale maanaam bootu ñu bëree bëri Serigne Cheikh loolu lañ ko mën a seedee moo tax mu jël jëmmam ji ak njaboot boppam tàbbaleen ci biir bisub sant Serigne Sam gii bis nag buñ koy daara jaal nit ak di ko tuddee nit lenn rek lañ ci jublu lenn rek la ci Serigne Ibrahima jublu mooy sëriñ Cheikh amoon na ay nawlay bopp yu mu bokkaloon nekk fii ci gox bi am na ay doom am na ay sët du ñàkk ay jikko mi rafet bu nee ba ci bis ba du ñàkk kenn ci njaboot gi dana wax ci moom yenn jikko yu rafet yoo xamante nit ñi dinañ ko dégg te buñ ko déggee rek dégg googu mën naa jàjj doomam mën naa jàjj sëtam mën naa jàjj dëkkandoo mën naa ji maanaam mboolem xale yi nekk ci koñ bi kon hëdëfu tudde nit bis duñ tuddee nit duñ tuddee duñ tuddee nit bis ku yaafus kun tuddee bis rek xamal ne jàmbaar la ci lislaam kooku jëfkat la kooku référence la kon sëriñ Ibrahim lam gën a bëgg sax ci bis ba mooy sëriñ Cheikh yi njabootam amoo ngeen ay jikko yoo xamante ni yaroon na leen ci daana ko jëf diggante nit ak mbokkum nitam daana ko jëf di nit ak mbokkum deretam jëf yooyu noonu bu tàbbee ca biir baas ba ba noppi yëpp dégg ko loolu mën a ma mën a am jeexantal ci way diglu ya mën a am jeexantal ci xale yi loolu rek mooy jubluwaay bi di wax ni seen teraanga ngi rëy na lool ndax bu ñëwatoon tamit du tee dana ko tudde bis ndax mbokk gi ak dëkkandoo gi te arab day wax na al ikraamu laa yurat teraanga kenn du ko delloo kon nga seen teraanga gii nii rëy na ci moom lool foor na ci moom lool mi ngi ñaan borom bi subhaanahu wa taala mu nangu ko te bu ko nangoo tamit na ko ful te bu ko fuloo ful googu nu tabbi ci seen biik daraja sëriñ bi xasida yi mi ngi ñaan la yonent boo waxoon yàlla nag may sama ginnaaw njaboot goo xamante ni dañ may taxaw sama ginnaaw mbootum aaye boobu mi ngi tabbi seen biir yow seen Habib yaag sa rakki bopp ci góor ñi ak jigéen ñi ñëpp rek di wax ne bu sante seen Habib rek sant na imaam mi sant na jigéen ñi. sant na ñëpp sant na taalibe yépp ndax mel na ne keroog bi ñu def avant première sarak ba mu teewee wax jam wax wala na yéen mer na ni sax bu fekkoon ne seen mbégte lu nu mënoon génn dañ ko génn teg ci kaw taabal gi ndax keroog na mu waxee siibra jàngat jàngat na ci yéen meex na leen lool te safoo ngeen lool kon nag xam ne kon bég na lool yaag sa rakk bopp di ñaan borom bi subhanahu wa taala mu nangu lépp ci barkab sëriñ bi xasida yi te alquran guñ fi jàng sëriñ Cheikh da ciy am xasida guñ jàng sëriñ Cheikh da ciy am berne guñ ko def sëriñ Cheikh da ciy am bépp jaamu yàlla gu def ci bis bi xamal ne sëriñ Cheikh faw dana ci jot ci biir barsàq comme moo ki ay dëkkandoom moo ki ay mbokk tayam foofu wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh